un week-end extraordinaire un week-end de tous les dangers gala MMA bu exceptionnel maanaam mix martial art ce samedi 18 juin à partir de 17h 10 combats yu tàng jër du xam ngeen blende doomu parcelle ak Grand Médine mooy mbër bi ëpp kaawoo ci lamb bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Sadio bu Lansar la révélation de l'arène saf sapp ci MMA waaye Tafsir champion d'Afrique en boxe anglaise dina fa jàkkaarloo ak ki nga xamante ne nii mooy Namarin plusieurs fois champion Sénégal Apkido et MMA Keila l'un des meilleurs en MMA moo fa war a jàkkaarloo nag ak Dimitri Wade le champion en boxe anglaise et chinoise Bamba Kenzel le démolisseur borom TikTok bi moo fa war a jàkkaarloo ak Old champion di ndaanaan bu mag si Zal Esamaay le redoutable champion bi nga xamante ni ni mooy dewanteel Wilder bu Sénégal moo fa war a jàkkaarloo nag ak ki nga xamante ne ni mbokk yi mooy tay di mbër di ndaanaan bu mag ci boxe chinoise mbokk yi bii nag mooy combat bu mag bi ci bés boobu ba tax na ku ci bëgg a réserver sa billet gaaw mën ngaa woote ci numéro bi 77 350 49 47 di ngeen ko mën a seetaan itamit en live pay per view ci seen affiche point com francs dong la nag pour ñi nekk Sénégal pour waa diaspora bi nag 5 virgule 99 euros la kon mbokk yi rendez-vous baa ngi noonu ce samedi 18 juin à partir de 17h ñu tase Bourguiba waaye MCI bala nag bu ko kenn jaawat waa jërëjëf mbokk ñoo ngi leen di nuyu di nuyu réew mi di nuyu bitim réew mbokk yi di xamal ni ñu ngi jëm ci bis bu mag muy bisu le 19 juin ñu ànd ceeg waa jàmbaar production bis boo xamante ni bés bu am solo la ci wàllu lamb ndax combat bi c'est le combat de l'année ndax 200 pour cent la Pikine ak 100 pour cent parcel wala 1000 pour cent parcelle tey gis ngeen fi Modou Lo gis ngeen fi Garga 2 gis ngeen fi Gora Sock gis ngeen fi Papa mi ngi ni taxaw kon bés bi moo ko laaj balaa may jox Franc damay jox Modou Lo kaddu gi Modou Lo ñoo ngi lay nuyu. yow jox mu ubbi waaw ñu ngi lay fay buur. yow la ñuy jox nga ibbi ba pare. waaw alhamdulilah d'abord ñu ngi sant yàlla lu ñu waroon i wax yëpp daanaka wax nañ ko day woowaat waa Parcelles yëpp ak fépp fu supporter nekk le 19 incha allah ñu ñëw supporter Franc. ñaan ko yàlla yàlla may ko ndam incha allah ñu diwaat ko parcelle bu soobee yàlla. bés bi ban bés la la fàttali ci wàllu làmb. waaw bés bu mag parce que bi moom macha allah dafa jaay boppam moo tax làmb ji moo doy noonu dañuy wax waa parcelle yëpp encore ñu génn ñëw supporter seen mbër incha allah dem arène nationale ñëw indi ndam bi le 19 incha allah loolu rek lay ñaan bu soobee. kon Modou Lo mën nañ ko xaar arène nationale bi eh, eh, bu le 19. incha allah bu soobee yàlla. mbokk yi Papa Sow. déedéet saw la. Papa Sow ñu ngi jëm ci bés bu mag ànd ceeg waa jàmbaar production. tey bés bi bés bu màgg la ci wàllu làmb bés bee ni toll wala adversaire bi moo toll noonu. waa sant yàlla rek comme li Modou wax la ñuy waxaat rek ñu ngi woo doomu parcelle yëpp bu leen ragal dara affaire bi xoolal raak tag la ñëpp bu ñu dem ñu su jëli sunu sunu li moom arène nationale le 19 parcelle bu kenn des na ñëpp ñooy dem jëli lu moom incha allah raak tak amul yoole Sokh nee na fépp fu ngeen fa taxaw dina leen jël waaye loolu raak tak la wax raak tak ay eh, mbokk yi ñu dem droit au but waajaa ngi noonu kii mooy adversaire Sokh Sokh kii mooy adversaire Sokh Franc gis nga bërki démb Sokh gis nga 200 pour cent bi est que xam nga ni 200 pour cent bi yaa génne deux cent pour cent bi da nga ne deux cent pour cent bi ngay tas loolu nga wax fan nga ko teg ma bàyyi la nga nuyoo d'abord avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax waaw waaw waaw avant tout avant dañuy sant yàlla bu baax a baax di nuyu suñu dëkkandoo yi waaw di nuyu suñu dëkkandoo yi di leen jégalu bu baax a baax parce que waaw di nuyu suñu dëkkandoo yi di leen jégalu bu baax a baax parce que ku woote ñu wuy si rek loolu rek dafa neex ci xool aussi tamit dañoo xaw a tardé ak guddi bi néew di leen jégalu baax a baax aussi tamit di rendre hommage à Moussa Dioum di ko ñaanal yàlla yàlla yërëm ko ak. ak Basir Cissé. ak atab coach atab ñoo ñëpp ay doomu Unité 7 lañu rawatina képp ku génn àdduna yàlla na suñu borom yërëm te jéggal la te xaar la àjjana yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def mais Franc démb euh, bërki démb nañu dem fee Pikine gis deux cent pour cent bi ëma seen génn Ama Baldé booy ñaa loolu wax la de loolu du ay fo deux cent pour cent bi ñoom ñëpp jug di waajal bés boobu noonu amul dara lu mu déstabiliser ci Franc non non parce que man lii actuellement li may gis nii li ma nekkal li famille la matin soir mili amul benn bés boo xam ne dañuy toog te duñu déggante Modou suñu grand la Papa suñu grand la même chose. ñu ne ñoom Gora ak ñoom Dioum de Garga de yeneen gars bu ñu limee dañuy juum li actuellement famille la. li nekkatul ay 100 pour cent li famille la lu ko tëgg tasu ko ñoom lu ñuy ni 200 pour cent dimanche ñetti ponk lépp xaj nañ ci. lu leer laa la. ñoom ñett ñëpp naa la indil ngeen. mais mais mais mais Sokh nee na. Sokh nee na. Sokh nee na boo jógee ci moom dootoo laajati mbër. nee na foo taxaw nee na est que li ngay wax di nga ko dëggal le jour si nee na fu mën a taxaw dana la fa fekk nee na boo xeexee mu duma la nga bëri mu daan la sa koy wax de suñuy wax. maa ngi koy xaar ba bés ba incha allah. rek nga ko mën a tontu. lan moo tax wax ñëpp yëngatu. ñi di daw goos ñi di daw droite moo tax ma ne ñoom ñëpp xaj nañ ci <laughs> amul problème. Ah, uh-huh. waaye. Uh-huh. parce que non sekkuma xaar moom sama supporter bëgguñu mu yàq moom. waaw. ayca mbar mbar ñu gis liy baaxul di wàññi sa sa ñetti baaru lu waral loolu. ah ñetti barigo yi la yi ci ginnaaw <laughs> yi ci ginnaaw. yaa ngi ci la nga nekkoon 30 secondes nga ko may ba dégg. tey laa ci gën a tey laa ci gën a nekk. lu leer laa la wax. fraction de seconde. et eh, franc ñu bañ a ñu bañ a naxante. ñu bañ a naxante. waaw ñetti bërigo yi kan kan la. xam nga ko. jarul ñuy ne fi di wax. comprendre nga dañu bàyyi wuy ma may ma ñëw rek. dafa guddi. waaa comprendre nga dafa guddi. te gaa yi ngi julli fii ci jumaa ñu xaw a joxe cër tuuti. xam nga ñu xaw a gàttal wax bi dimanche ñëw na ba pare. ñu ñaanal ñëpp ñu fi teew képp ku ci ñibbi nga ñibbi ci jàmm. encore une fois di waat waa parcelle 1 ba 26 doomu parcelle waa Grand Yoff sama mbokku njaago yi maa ngi leen di woo bu baax a baax. waa Thiem Maxi. mais Franc Franc Franc mais Franc ci sa communication may ñu benn question bi rek lañ lay ñaan. waaw may ma may ma may ma benn question bi rek nga benn question bi ñëwal. benn question yi dañ koy laaj. benn question bi bi nga bi la joxee sokk ba léegi mooy ci sa communication saa su da ngay mel ni kuy bëri mbër mu ndaw da ngay ni kuy bëri ku amul benn expérience da nga ko nawloowul da nga ko xeeb wala lan moo xew est-ce que loolu mën na la juumloo xam nga ku ne ak nu muy gisee comprendre nga mais man famille bi ma nekkal ni rek fii am na lépp lépp a ngi fii yaa tout comprendre nga comme amul lenn lu ñuy ne fii di tiit wala lu ñuy ragal fii lépp ngi fii yaa tout fii mooy parcelle payant. yaa may dégg. ñu bàyyi la nga tàggu ko. waaw di nuyu encore une fois ñi nga xam ne jàpp nañ ci ku ci mel ni monsieur le ministre Amadou Ba jàpp na ci bu baax a baax suñu maam per ba mooy suñu président écurie ñu koy nuyu bu baax ak bu écurie jàmbaar yëpp ñu ngi nuyu aussi tamit suñu père Ndiougo père Ndiougo ja muy ngi fii ak Yaram Gueye coach su Lato ak Souka Balla Diouf ñoom ñëpp ñu ngi nuyu parcelle mu bëru parcelle yëpp ak bisinti aussi tamit ñu ngi koy nuyu njaago bi ah waaw aussi tamit di dem ba Belgique di nuy son benn grand muy Khalifa Sankare séri Maam Kumba maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jàpp jàpp nañ ci combat bi daal maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant waaw di wax nag l' international Youssou Ndoye gisaguñ la doom nday Goro Sack ak Modou gisaguñ wa waa waa T-Max convoi dimanche dañuy teel a yoone stade bi dama bëgg ñun ñëpp ñu teel a takku yaa ma gën a xam di nuyu aussi tamit waa dooleel franc waa dooleel franc maa leen gërëm bu baax di leen nuyu interset bu ma dëkk maa leen bàyyi ma leen yëpp dañuy ñu limal yi tuub waa Open Dio xam nga waa Grand ñoom ñëpp aussi tamit njaago yëpp gis naa leen waa Open Dio ñoom ñëpp gis naa maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp yàlla yàlla daf jàmm ba le 19 incha allah njaago si ndey njaago Agora só, agora, agora. É Jojo. un week-end extraordinaire un week-end de tous les dangers gala MMA bu exceptionnel maanaam mix martial art ce samedi 18 juin à partir de 17h 10 combats tàng jër du xam ngeen blende doomu parcelle ak Grand mooy mbër bi ëpp kaawoo ci lamb bi moo fa war a jàkkaarloo ak Boy Sadio bu Lansar la révélation de l'arène saf sapp ci MMA waaye Tafsir champion d'Afrique en boxe anglaise dina fa jàkkaarloo ak ki nga xamante ne nii mooy Namarin plusieurs fois champion Sénégal Apkido et MMA. Sylla l'un des meilleurs combattants sénégalais en MMA moo fa war a jàkkaarloo nag ak Dimitri Wade le Congolais champion en boxe anglaise et chinoise Bamba Kenzel le démolisseur borom TikTok bi moo fa war a jàkkaarloo ak old champion di ndaanaan bu mag si Zal Esamay le redoutable champion bi nga xamante ni ni mooy dewanteel Wilder bu Sénégal moo fa war a jàkkaarloo nag ak ki nga xamante ne ni mbokk yi mooy tay di mbër di ndaanaan bu mag ci boxe chinoise mbokk yi bii nag mooy combat combat bu bi ci bés boobu ba tax na ku ci bëgg a réserver sa billet gaaw mën ngaa woote ci numéro bi 77 350 49 47 di ngeen ko mën a seetaan itamit en live pay per view ci seen affiche point com 1500 francs dong la nag pour ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk Sénégal pour waa diaspora bi nag 5 virgule 99 euros dong la kon mbokk yi rendez-vous baa ngi noonu ce samedi 18 juin à partir de 17h ñu tase Bourguiba waaye MC Ibala nag bu ko kenn jaawat